Dakar, notre ngeen jëfan Ndeye Ndack ture mi nga xamee ni jamono jii diggam ak yoon mi ngi ci guddi gët setagul ba nga xamante ni démb lañu ko convoqué woon moom naka la ñu koy toppee bokk na ci ay kàddu yoo xamante ni njortees nañu ni mën naa taal réew mi moom Ndeye Ndack Touré naka démb ba ñu koy yóbbee lañu ko déglu ba daal di ko mettre en garde à vue niki tey naka la ñu ko defeere mu war a jàkkaarloo ak procureur ba animatrice bi naka bari na ci sénégalais yoo xamante ni jamono jii ñi ngi koy soutenir wax ni rek jàpp gi ñu ko jàpp wala li ñu koy topp lenn lu dul ay caaxaani kese réew mu Sénégal jamono ji kumbaam ndey ak kumbaamul ndey moom moo fi am Ndeye Ndaka Touré mi nga xamante ni jamono ji bi nga xamante ni jël na ko porté ko boppam di ko xeexal boppam moom Ndeye Ndaka Touré nag ale yi naka danoo jàpp ni combat ba muy xeexal moo neexul waa état bi tax ñu bëgg ko faagaagal jamono ji ñuy wax ak yenn ma nga ca loxoy yoon ñuy lijjanti mbiram xool fu wànnen di mujjee ki gëtam keneen ku yoon teg loxo di waa ji di Serigne Khadim Mbacké moom Serigne Khadim Mbacké nag ma nga xamante ni moom moo fi violé woon ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay xale yoo xamante ni moom moo leen doon jàngal alxuraan Serigne Khadim Mbacke naka moom la ñu wax ni moom moo violé xale yi naka ñu ko doon wër ci wurum ak Touba moom Serigne Khadim Mbacke naka ña ko teg loxo moo di waa police bu ndaamaat ak ba ñu ko tegee loxo ba koy déglu kàddu yi mu yëkkati la am daf ko weddi di tëdd ca naaj ba ni wax lañu koy jéeñ ci moom Serigne Khadim Mbacke naka nga daw génn biir Touba naka mu ne dafa demoon biir Casamance ngir mën a préparer boppam ci wàllu mystique waaye leneen yóbbu sàkku xale yooyu dara du ci dëgg ni xari mbàkke naka ci daara la yoroon di fa jàngal ay ndongo alxuraan noonu naka la sàkku ñaar fukki xale ka juróom-ñaar naka si at yu néew la ñu toll jamono ji sëriñ xadi mbàkke jëf ka ci yëkkati ay kàddu di ci wax mooy mouhamadul mansour diop journaliste bu mag boobu kàddu yoom ci jiital naka bokk na ci ni jamono ji ñëpp ñi ngi ubbi seeni gët toog tey ŋàññi waa daara ji maa ngi xaar naka ba kenn rek yëkkati kàddu wala dara jëmale ko ci daara li am ni bokkul la ka dara daara naka dañu fay jàngale ba noppi di fa yar toppi jikko nit di sol ca moom ak yiw ka muy ay kàddu Mamadou Mansour Diop te ni nag nit ko def ak ñaawteefam bu ñu ko askanale ndeyam bu ñu ko askanale baayam nañu ko ko askanale mooma ndax moom moo defa ñaawteefu boppam leneen lam ca yokk naka ma ngay sàkku yoon def liggéeyam kaw kooku di Serigne Khadim Mbacke moom ma nga xamante ni rekkal la ñu koy toppee jamono ji mooy coowal viol viol ba tey andi Sénégal jamono ji ci guddi yu gët golo xale yi di ci dee di ci ñàkk seeni bakkan kenn koo xamante ni rek ñàkk na ci bakkanam bakkanam moom Babacar ana naka ca manifestation yo ne rek ñii di waa police ñoo ko jàpp daal di koy patam-patame naka daal di dugal seen oto obo la ñu gëj a gis jëmm Baba Kaana yooyu naka mooy magam bu góor bu mu bokkal ndey ak baay wax ni ñoom dañu toog rek a jékki njégg ñu naan jam nañu baaba jam nañu baaba ñu dem di ko wër métti goo xamante ni fépp foo xalaat rek wala ñoom fanu xalaat rek dem nañ fa gisuñu seen rakk jooju di Baba Kaana naka mujj gi naka la ñu dem ca kansapor ba fa laajte pompier yi xamal leen na ñoom koor ba ñu fa andi àndut ak bakken nga ñu Senghor la ñu waaxoo dem ca morgue hôpital Félix Senghor di fay fekk seen néew rakk boobu di ya nga xamante ni yëkkati na ko rek jëmale ko ca la am la a naqari ba ñu demee ca commissariat bay laaj seen rakk ñu xamoon ni ñoom ji mi ngi seeni ay loxo woo ci ay téléphone portable am ay papier lépp nekkoon ci ñoom kenn wuyuwul appel dañu bàyyi téléphone bay soné rek te boobu seen rakk ji wuy ji na boromam unu ñu leen ko woon wax te magu Baba bi weddi na kàddu ya nga xamante ni rek am na ñenn ñoo xamante ni génn génnoon nañ di wax ni néew Babacaana ña ngi ko fekk tefes bu géej bu jàmmalaay moom weddina loolu ba tëdd ci suufa di wax ni nag seen néew rakk boobu di Babacaana ko fekk ca morgue l'hôpital bu Philippe Senghor ku ñu boom ci manifestation bi xale bu góor bi di woyu ci turu Ibou dëkk Pikine mi tamit noonu lañu ko boomee waaye Ibou démb ba ñu ko doon denc rit mbokk am di jàmm ak dëkkandoo seen xar kanam booy xool test total nga ciy gis sa naka ba ñu ñëwee ba ca biir kër ga rek gis nga tantam bi nga xamante ni yëkkati nay kàddu jëmale ko ci xale boobu di Ibou bu baax dal bu yaatu te yaru ñu boom ci anam bu ñaaw boo xamante ne naka ñoom ña ko koy ñaawlu ba léegi naka ki boomu seen doom ji duñu ko ko baal tey ko ko baal ëllëg danu ko ko topp ba yowmal xiyaam naka lenn waralu ko lu dul coow li nga xamante ne mi ngi am jamono ji ci biir réew bu Sénégal yu jàpp xale yi tëcc mbaa ñuy jàpp di yàlla xar kanam gu soppeeku bi mu yor na naka keneen koo xamee ni itam nañu ko ci manifestation yi ci turu Bachir moom itamit bal lañu ko dóor mu daal di jaaxaan naka mooy def ay révélation na yëf demee di wax ne naka xaritam bii di Bachir ba ñu ko faatee ba pare rek cëb sareet la ñu ko tekka di ko jagat-jagatee kanaka beneen ba rey bu ñaaw boo xamante ni reyati nañ ko doomu Sénégal ci manifestation yi nga xamante ni moom moo am jamono ji ci biir réew bu Sénégal te dara wunduwu ko lu dul coowal viol bu doxoon ci diggante ko Sonko Adji Sarr fa njaayi naana ay duyam ci bopp boroom naka ku ñu ci loro ba dal di ko xaañ mooy waa ji di Mbaye ku Kouthia naka ku ne xam na kooko téléphone ba mu yor di wër bu tey boppam naka keroog ca manifestation nga la ñu ko gis naka mu doon lancé direct ci téléphone boobu di filmé la a jàppante yamoon a doxoon ci diggante way takk der yi ak ndaw yu Sénégal daanaka ca noonu la ko xale yi attaqué du boppam naka mu ne birig la ñu ko door toj boppam caxat-caxatee yaramama nangu ay téléphone am yamu yoroon ku caanaka ma ngay ñaawlu bu baax a baax acte ak geste ba nga xamante ni xale yi def nañu ko ci kawam ndax moom mbay ku caa ma ngay wax moom liggéeyam rek lay def ku ko xam xam lépp lu muy def naka mooy téléphone am boobul moom lay yor def ay interview diggante bu yàqu mu fësal ko moom mbay ku caa naka noonu la ko xale yi def Macky Sall jàpp nga ñëpp muy kàddu pa Mara Niass Mara Niass nag gannaaw ba mu woowee presse bi nag di jàkkaarloog ñoom ay yëkkati ay kàddu tey ñaawlu bu baax a baax rek jàpp bi nga xamante ni Macky Sall mi ngi koy def jamono ji ay doomi Sénégal comme ca gën a fësal nag bokk na ci mbokk moomu di Cheikh Bara Ndiaye ma nga xamante ni dañu ko fekk ca biir këram te la feta la teg ca kaw bopp jox naa ma jàpp jagat-jagatee yóbbu Mara Niass nag ma ngay ñaawlu bu baax a baax rek la nga xamante ni def nañu ko ca mbokk moomu di Cheikh Bara Ndiaye te moom Mara Niass nag ma fàttali bu baax a baax Macky ne ko ba ngay ñëw ca Serigne Saliou man mi fekkoon nga ma fa ndax bokkoon naa ca ndongo ya nga xamante ni ña nga woon ca wetu Serigne Saliou mënees nañu jàpp ni président Macky Sall la mu warloo woona wala kàddu ya nga xamante waxante woon naka ak Serigne Saliou jëfewu ko ji wër di jàpp njabootu Serigne Saliou di leen teg loxo muy ay kàddu yoo xamante ni Mara Niass ma ngi ko nga ni ma ngi ko doon def Mara Niass naka ca noonu lay waxe rek ba ab aal dugal ko mu daal di rajaxe taabal ba fëlëxa micro yi kuy daanu pa gàngari te tiit loolu ci king Baba Ngaaka Blindé moom Fatel Sawnaka ab vidéo la ñu ko gis mu nekk ci essentiel ni moom Fatel day làqi angale ci ay kaddu kàng angale mi ngi def tour ci réseau bi di reetaan lool nool xamante ni ñoom ñooy ok internet yi angale yi rek nu ji naka vidéo ba ma ngay wër di def tour ci réseau social bi ñoo xamante réew mi dañ leen jàppee comme ay complice jamono ji mooy influenceurs yi nga xamante rek ñoom ñu daan nekk ci réseau social Sénégal bi gis nañ leen jamono ji gannaaw ba Sénégal la nekk ci ay guddi yu gër seetagul nga xamante ne rek lépp lu daan xew ñoom ñoo ko daan def see vidéo ci réseau social bi waaye naka jamono ji Sénégal la xat ak tartar yi ñuy dund influenceurs yi nag askan wi ñu ngi wax ni gisuñu ci kenn rek la plupart ci ñoom dañu toog seen ruq xam na jamono ji Sénégal li ñuy dund ku noppi rek complice lañ lay jàppe ñoom influenceurs yi nga xamante ne jege woon nañu askan wi lool naka jàpp nañ ni bu ñu demoon ba nekk ci ay xat-xat rek ñoom ñoom ñoo waroon jiitu ca xeex ba te ko def ko seen yëfi bopp waaye